على الوزير سيف البصير رضا القدير مجري القداي على الدياي أقل أياي خير الرداي من ذي البقاي على القريب ليس الهروب رضا المجيب مع ارتقاي على الساب زاوي الإجابة yowmal kaabari dasanaay nixma rijaalu law majaalu nilu anaalu waxtal anaayi rida samii alal jamiihi yowmal xusuuy yowma nidaayi arbaa bi xayri arbaa bi dayri li baaxi mayri aamitidaay kulun su jaaw lohoo tibaaw loor tifaaw waxtari faay nixmal kumaatu nixmal umaatu hiddana maatu bilaxtifaayi biima fawtu wama jafawtu biim nafaytu saa wiftiraay tanooli xayri آداء ديري بأذن خيري ما اترائي فوت أمري لي مقي أمري ما أهل بدري بلا امترائي إني أقول ولا يميل لمن يسول مع الجراي يا ذا الجلال يا منتعالي يا خير والي أجب دهائي صل وسلم على المكلم ودرياس وسنوهاء على رسولي باب الوصول لني لسولي أخمارها سل دواما وزد سلاما واسكر خلاما لي وبنائي يا ذا الإرادة يا ذا الإفادة قلد سادة من سنني خير خديم المصطفى fa innani aqdimuhu bima stafa aqdimuhu ila duqulil janna daaril xaraari wal muna wal minna man sanna annahu yakunu abada yurdihi billasi ka xilmati bada fa xarrahu dalalu wal idlalu yanxaadu li minhu bil alalu madatu xablu la daali barwali ala alwasiri sayfil basiri بعد القدير مجري القداي على الدياي أقل أياي خير رداي من ذي البقاي على القريب ليس الهروب رضا المجيب مع ارتقاي على الساب زاوي الإجابة يوم الكاب رد سناي نعم رجال law ma jaalu nilu anaalu waxtal anaayi rida samioy alal jamihi yowma alxusuuy yowma nidaayi arba bi xayri arba bi dayri li baaxi mayri aami tidaayi kulun su jaaw loxoo tibaaw لو ارتفاع واقترفاي نعم الكمات نعم العمات هدنا ماتوا بلا اختفاء DK TV mooy Dakar TV people man Niakhar Lô aka Faramareen Music maa ngi seetaan DK TV. voilà man la Mame Fatou maa ngi seetaan DK TV. Maabo. Maabo jaajëf waay DK TV. kon man El Hadj Bekay maa ngi seetaan DK TV. man Malick Thiandoum maa ngi seetaan DK TV. oui euh, man Moustapha Guèye maa ngi seetaan DK TV. man Viviane maa ngi seetaan. DK TV. yes sir yes sir Wally Ballago Seck mi pro waaw man El Hadj Abou Bilal Koutia damay seetaan DK pour yu am solo. ngaa ko maa ngi seetaan DK TV. di dundu gis DK TV. Malom Zo daal maa ngi seetaan DK TV. léegi ma liggéey li mu ngi DK TV dina ko seetaan waay voilà. yal na ngeen nekk ca kanam li neexul. DK TV.